maa ngi tudd Mame Bousso Sakho euh, nekk doom ci euh, Seydi Alaaji Aliou Sakho Cheikh al Islam radiyallahu anhu yal yàlla leeral kanamam barkeel ginnaawam yal nañ ko fekk ci barsàqu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa macha allah euh, bokk ci doomam yi mag fi mu toll nii ci mag ñi ndax yaakaar naa fi ne ci ay doomam benn kenn mooma ci mag muy Faatumata Sakho macha allah moo nekk Saalum waaye fii ci ndakaaru ñun ñu fi nekk tey yàlla dogal na wala yàlla natt na ma ba nga xamante ni man maa ci gën a doon mag góor gi nag tey euh, li suñ liñ xam ci moom suñ ko buggee wax du duñ fi jógee sëñ bi yàlla dogal na moo ñu jur ci farata yàlla suñu si Mohamed euh, yar na ci islam jàngal ñu alxuraan ndax man moo ma dalal alquran muy sama baay macha allah. ba ma àgg ci amim saayin siin xaaf macha allah mu commencé di voyage jël ci daara ji benn beneen sëriñ daara mu ñuy jàngal macha allah ñu koy wax Jibril Diop moom la jëloon ci daara ji mu ñuy jàngal alxuraan ba macha allah ba li ñu yàlla jox ci alxuraan yëpp ñu am ko ci. Eh, teewul ci biir loolu teewul mu ngi ci doon bàyyi xel ndax lu mu nekkoon ci liggéey daan voyagé dem ak a ñëw yëpp saa su ne bu ñëwee fu ñu mënta yem rek. macha allah danañu natt ñu tari ko lu ca jub mu mu gërëm ko lu ca jubul it macha allah mu jubbanti ko taxaw ci ba nga xamante ni tey suñu xam-xam ci suñu diina yàlla dogal na réeruñ ci alhamdulilahi rabil alamina ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ndax biñ demee ba sori ci alquran ji dafa ñu ne da ngeen di boole euh, euh, téere yi maanaam njàngum fiqa ak njàngum alxuraan ndax carrière jigéen dafa yow dafa yàggul comme carrière góor ndax jigéen bu amee fukki at ak ñeent jëm kaw rek ah, jëkkër mën na koo ñëwal te balaa boobu war na fekk ngeen xammee seen farata ak seen i na xam ëllëg nu ngeen di nekkee ci seen i kër ak nu ngeen di yoree seeni njaboot ci diina macha allah kon euh, yàlla dimbale na ko mu dimbale ñu ba nga xamante ni suñu farata ak suñu sunna xammee nañ ko xam nañ alquran ci du dalee ci baqara ba naaj macha allah alhamdulilah fu ñu neex mën nañu faa def mën nañu faa jàng mën nañu wàccee suñuy kaamil te loolu moo ko def si ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko loolu ci njaboot gi nag alhamdulilah euh, ñu ngi sant yàlla bu baax ci njaboot gi mu fi bàyyi euh, rakk yi mag yi xale yi jigéen ñi góor ñi tey ak yaay yeeg mbokk yi mu fi bàyyi yëpp yàlla def na ci ñoom tawféex yàlla def nañu déggoo yàlla def nañu déggal ma macha allah euh, lu ma bëgg bëgg nañ ko lu ma bañ bañ nañ ko yaakaar naa sax su ma amee lu ma bañ sax du ma leen ko ñemee wax ndax lépp loo xamante ni neexul ma rek nam leen di naqaree moo ëpp man nim may naqaree ba tax na sama bànneex rek laa bëgg ñuy xam waaye bëgguma ñuy xam lu ma naqari macha allah loolu yàlla def na ko ci njaboot gi te moom la. ci biir waxtaan wi fii ci ñaan gi ñu ko doon ñaanal ci kenn ci ñu doon mag ñi doon wax nee nañ góor gi de li ko jaaxal ci njabootam gi mooy juboo gi ñu juboo ak déggoo gi ak lu mel ni ñun ñëpp ñu nekk ay kal. macha allah comme doomu nijaay doomu bàjjan loolu déggoo moo koy waral kaf rek moo fi am loolu nag laa budda mënul ñàkk ndax moom moo ko liggéey ndax am na ay ñaan ay ka jàng ay lim ci ay yaasin yoo xamante ni góor gi da daan def mu koy wax 40 yaasin yoo xamante ni bis bu nekkan góor gi dana ko ñaan dana ko jàng bokkut loolu bokkut ak ay awraat yi mu daan def ak li mu daan jàng ci limu alxuraan loolu mu ko bu mu ko daan jàng ak njabootam moo tax mu ko doon jàng dem na ba nga xamante ni moom bu voyagé waan sax bu tukki waan sax macha allah euh, xam ne taj bene maanaam xat na ba du ko mën a def sax daf ñuy woo séddale ñu ko ne ñu defal leen ma ñeen fukki yaasin yooyu ñu jàng ko ci kër gi. bu dikkaan ma ne ko baay baay waaw yaasin yi ñuy jàngaloo loolu moo tax mu ne ma sama yaay parce que yaayam la ma tuddee woon ma bokk ci ñi mu gën a fonk macha allah defal ma lu ne nag. mu ne ma sama yaay xam nga lu tax ma koy def loolu dara taxul ma koy def yéen yéen a tax ma koy def ndax ëllëg su ma fi jógee wala su ma fi neexee it bëgguma dara tàqale leen te damaa bëgg fu ngeen tollu ngeen jub te juboo looloo tax ma koy def macha allah moo tax njaboot gi sant yàlla ba mu bëri jàmm rek moo fi mën a am moo Mohamed Sakho wax na ko ki bëgg jëriñu ci njabootu Aliou Naar bëgg a jëbadu jëriñ ci njabootu Baye Sakho mooy nga yéene leen jàmm bëggal leen jàmm nañ yéenante jàmm bëggal bëgg suñu boppu jàmm suñu bëggee mucc waaye suñ ko deful duñ mucc loolu rek mooy mooy moo ñu jég alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi ci yàlla na yokk yàlla nañ ko teewee ay déwén yu bari ci barke yonente bi sallallahu alayhi wasallam sant ngërëm ñeel na la salaamaaleykum